léegi bof li may les leneen aussi mooy yow est bii ban genre avenir nga gis carrément euh, avec le bitcoin et pas euh, chez les autres crypto-monnaies ah ouais question intéressante euh, premier avenir au bitcoin ça va dépendre de la mort des monnaies que l'on connaît aujourd'hui déjà depuis quelques années on parle de remplacer le CFA par Eco, Afrique de l'Ouest anglophone tamit euh, on voit aussi on va dire la mort à petit feu des monnaies là maanaam euro dollar Je vous que sax évaluation depuis presque leur création le dollar par exemple a perdu 85% de sa valeur donc on va dire c'est un indicateur étant donné que monnaie yi nga xamni mom lañ doon utiliser jusqu'à aujourd'hui pour des commerce international pour échanger ay biens et des valeurs monnaie est ñu ngi étant donné que monnaie yooyu tamit nit yi ko utiliser pour épargner mais aussi bëgguñ ko utiliser pour investir parce que nit yi ko bëggatul accepter de plus en plus Bah, nit yëpp dañuy tourner ou benn alternative donc comme ni ma waxee sànq à la base historiquement alternative c'était l'or à part or du tu aussi le pétrole mais différence bi mooy que or ak pétrole boobu noonu dañuy waaj a jeex lu nit yi mënatuñ see basé pour garder ay réserves. léegi nit yi commencé nañu état yi commencé nañu utiliser réserve yooyu noonu sax pour mën satisfaire besoin wu peuple bi besoin wu industrie bi or mënatul pétrole mënatul donc les gens qu'est-ce qu'ils ont vu en bitcoin ben crypto-monnaie boo xam c'est déflationniste Manam, c'est limité le nombre de bitcoin est limité donc plus y a de bitcoin plus a de valeur nit yi lan lañ gisaat ben réseau bu robuste réseau peer-to-peer il est extrêmement difficile voire quasi impossible nga hacker ko ba arrêter. exemple je laa joxe la dernière fois aujourd'hui il y a plus de 20 000 nœuds on va dire entre guillemets euh, sur le réseau bitcoin Vraiment. 20 000 nœuds éparpillés sur 5 continents donc suba États-Unis si boppam su jógoon ne na bitcoin et que ben euh, citoyen américain bu am droit am faire une wala def ay transaction en bitcoin ça veut dire que foofu noonu du amati mais loolu lu tere bitcoin continue d'exister exister c'est impossible pour presque la quasi-totalité des autres crypto-monnaies elles ne sont pas vraiment décentralisées quoi Benen affaire bi mooy gars yi y ni écosystème bitcoin bi c'est un écosystème basé sur li et la théorie des jeux Manam, chacun se surveille chacun fait de telle sorte que Quelqu'un qui, des def li c'est à l'avantage de Bitcoin et pas au détriment de Bitcoin donc utilisateurs yi mooy nit yi nga xam ni Bitcoin Nous, chaque jour dañuy surveiller Bitcoin la le ci xew wala prix commerçants ils vendent des maisons ils vendent de la viande wala dañuy jaay ay oto ak n'en ak yeneen contre du bitcoin mais chaque jour dañuy vérifier tamit est-ce que bitcoin li siy xew dina leen arranger wala déet ils ont leur mot à dire développeurs yi nga xam ne ils ñooy maintenir code bitcoin mais ñoom dañuy déglu lan la utilisateur yi soxla te xam nañ ni tamit ñu ngi di surveiller mineurs yi nga xam ne dañuy sécuriser réseau bi ont ñu ngi di surveiller donc développeur bi moom utilisateur bi ak commerçant da koy surveiller mineur bi développeur bi mu ngi surveiller utilisateur bi tamit mu utilisateur bi si boppam nit yi moom la convaincre donc c'est un cercle bipart euh, non pas vicieux mais euh, vertueux tu vois donc Bitcoin un réseau autonome là, basé sur un protocole et qui se on va dire qui s'autodirige et qui s'auto-sécurise donc risque ay appel de cyberattaque yooyu c'est quasiment nul quoi même ce qui est na ba léegi nii donc so récapituler nga am une monnaie déflationniste monnaie qui xamni censurée. kenn mënu ko censurer manam ku nek mën nga yone ay bitcoin fep dans le monde te kenn mënu la ko téré monnaie qui xamni c'est très sécurisé elle a fait ses preuves pendant 12 ans tey nii te ñëpp jëm nañ ko attaquer ay état jëm nañ ko attaquer et agence fédérale ab jëm nañ ko attaquer ay nit sax jëm nañ ko attaquer de l'intérieur donc qu'est-ce que ça fait da ngay gis benn état bu mel El Salvador ne man léegi bëggatuma am ay dollars sur mes réserves dans mes réserves damay commencé changer di jël bitcoin Argentine di ko waaj a def Ukraine di ko waaj a def ñu ne la Russie tamit commencé na jël ay bitcoin si ay réserve à côté de ça état yi nga xam ñoom on va dire wóolooguñu bitcoin ñu ne xam la la ñun même su fekkee wóolooguñu bitcoin concept de crypto-monnaie bi arrangé nañu donc nous dañuy créer suñu propre cryptomonnaie Nous savons que c'est une chimère fi du baax mais dans tous les cas nous ngi jëm au le monde pour répondre à ta question Bon, xam crypto-monnaie ça va être la norme Dès tamit laa gis sur LinkedIn kenn partagé que au Kenya tu as une structure qui a créé crypto-monnaie locale pour mën permettre nit yi ñuy jënd seen boutique tu vois donc dans les années à venir crypto-monnaie en général ça va être euh, ça va être banal quoi ça va être la norme ci biir l'olu, tout le temps nit yi dinañ wër ben réserve ben, fenn foo xam ni su affaire yi xawee takarnaase dinañ dem denc fa seen xaalis te du perdre valeur te duñ ko perdre ñoom si boppam mais aussi suñu demee ba avancer, bi gis ni que wu état yi li ñu wooyee CBDC nous ñuy gën di jël ampleur nit yi dinañ gën xam danger yi ba dinañ gëna wut encore Bitcoin pour se protéger donc moi l'avenir que je vois pour Bitcoin est radieux mais vraiment c'est sur le long terme quand même on va dire dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir après tu vas voir bon xaw ma dinañ ko féké yalla nañ ko mais si dans 10 ans on se reparle tu vas voir que top 10 sous crypto-monnaie ça va changer mais que Bitcoin va rester quoi j'espère que répondre à ta question. bon man mën ci affaire bu ndaw rek. par rapport ak li Nour wax man prédiction lay def en fait c'est une vision non la ko non la ko jàppee dama jàpp ni que bitcoin bi dafa ñëw nekk benn supra monnaie boo xam ne dafa nar a coiffé monnaie yi am yëpp yi existé yëpp li li Nour di wax ni que day nekk benn genre refuge nga xam ni su affaire yi xawee ñaang rek gars dañu daw rek euh, làqatu ji ci bitcoin bi parce que monnaie bi ñu nekk di utiliser peut-être mu ngi commencé am problème wala y des changements wala dara man dama gëm ni. CBDC yi dinañ bëri trop cryptomonnaie yeneen cryptomonnaie yi altcoin yi dinañ bëri trop monnaie même cryptomonnaie état yi dinañ bëri yoo xam ne du sax bokk ak CBDC yi nga xam ne banque centrale ñoo koy lancé wala dara mais ci ci ci ci genre melting pot boobu di am ci cryptomonnaie yi nga xam ne ça va exploser man dama jàpp ne que bitcoin dafay ñëw placé bu comme benn supra monnaie benn monnaie global mondial bo xamante moy servir sax de monnaie d'échange entre yenen monnaie yi moy nek vraiment supra monnaie bi nga xamante ni dafay moom c'est sûr que ni fay rester quoi yi ci des nak mën nañu yéeg wacc yi disparaître yenen judd mais mom dina nek genre sécurité monétaire bo xamni c'est mondial et c'est open merci merci Babacar Jarvis, est-ce que tu connais cette question? Wow, merci, c'est intéressant, franchement. Le moom c'est le si lu bëri da ngeen déjà ma gën a ma gën a kii culture euh, disons chercher d'autres choses à savoir sur ça donc merci pour être euh, voilà continuer discussion et ma gën a déglu rek. ñoo ko li objectif room bi essayer voilà de discuter autour de Bitcoin en wolof pour que nit yi mën gën si jàngat quoi alors je sais pas non. voilà ça loolu dañ la ci encouragé quoi Moi, que ni va chercher l'information continuer de creuser l'information est disponible et il y a énormément de canaux yo sont utiliser pour informer ou que sa information donc c'est important il faut le faire. D'accord, sans problème. Merci, merci encore. Voilà. Donc du coup, est-ce que gars, on a un sujet, une... voilà, bonne question man bëggoon question vas-y bitcoin ak Monero mis à vis de fait que nous ñaar yëpp ñu pour le fait que Monero gën gën ko gën privé est-ce que Monero dina am avenir par exemple pour bu l'air comme bitcoin quoi de ma question. Si, question bu question bu grave grave waaw car parce que temps yi ni passé rek euh, lit dev Monero bon avec solo Fluffy Pony gars yi arrêté woon à la frontière mexicaine bon déjà tour Monero Monero monnaie en Mexique euh, en mexicain je pense en espagnol gars yi dañ ñëwoon ñu bëri cartel mexicain bi ñoom ñoo ko financé pour ñu mettre ko en place donc Fluffy Pony instant yi mi ngi woon prison euh, numéro 2 on va dire dev Monero moneroi dafa après de benn tweet mais comme quoi il a récupéré tous les codes d'accès que instant bi il a résilié bon il a éliminé accès au Fluffy Pony yëpp si code source Monero en sachant que aussi euh, Monero lu tax ñu privacy coin Bitcoin c'est une crypto-monnaie semi anonyme Madame, même si vous ku une da nga am adresse adresse bi nga xam ne mooy représenté achu sa clé publique yow Babacar ma yónnee la ay bitcoin xam naa ni yow la mais suba mën naa dem si benn exchange piir to peer jënd cryptomonnaie ak benn pseudo gaan bi jox ma benn adresse mais je saurai jamais kan la lan laay mën a def mooy damay dem si benn bitcoin explorer ma tapé transaction ID bi dina ma wan instant bii nii transaction bi fan la toll Donc c'est semi-anonyme. Parce que transaction même si c'est anonymisé, tu mën nga dem endroit gamme information si tu télécharger un full node installé quoi tu as la possibilité am toutes les transactions qu'il y a eu sur le réseau Bitcoin depuis sa création en 2009 alors que Monero est basé sur le niveau zero knowledge proof madame ma yor ay Monero ma war la yónnee Babacar yow ay Monero y' a pas de blockchain explorer pour Monero maanaam di nga jot say Monero man ma xam ni yónnee naa la ko yow nga jot ko sans kenn mën a vérifier fenn transaction bii ni si kan la jóge dem si keneen lan lan mooy changé mooy état wu suñuy wallet maak yow mais entre les deux li siy xew benn boîte noire la. loolu moo tax nag ñu di utiliser Monero et loolu moo c'est le cartel qui utilise Monero etc. alors que c'est pas forcément ça quand il s'agit de vie privée des gens il ne s'agit pas de cacher quelque chose il s'agit juste de dignité jubale kenn dafa ni dafa quoi mu ne les gens qui n'ont rien fait n'ont rien à cacher gars yi ne ko ah su fekkee loolu la kon publier le mot de passe adresse email wala boog jox ñu accès euh, téléphone parce que yow ñun gëm nañ yow si nit yi nga mais tu n'as rien à cacher donc erreur, non si principe boobu noonu la même su il est bien beau d'avoir une anonymité avec benn euh, adresse Bitcoin avec des chiffres et des lettres etc. même si c'est bien beau d'avoir un blockchain explorer une monnaie a vérifier et ils se disent c'est pas ça l'idée vision Satoshi Nakamoto c'était un système de peer-to-peer sans intermédiaire et su un sens intermédiaire c'est au sens propre du terme amul y intermédiaire bu fi wara pour mën vérifier le, wala pour mën assurer que tout se passe bien protocole bi mo wara gérer loolu lepp si yone man dama wara a rek yónnee faté yow nga jot sans même t'assurer que sans même te poser des questions quoi donc lool moy avantage Monero par rapport ak Bitcoin et je pense que plus nous avancer plus les gens vont se rendre compte de force Monero bobu non après nak Monero c'est comme Bitcoin il faut nga am ben full node wala il faut nga am ben nœud so bëggee su féké da nga bëgg profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre cette crypto-monnaie là yenen privacy coin yi existé am nga si Zcash tamit euh, am nga si yenen man mais man ñaar yooyu la si gëna maîtriser mos leen essayer bu pour me faire ma propre idée mais j'ai trouvé que il faut vraiment nit ki am fit pour bu utiliser Monero quoi mais aussi ah non mais parce que tey suba man ma war la yónnee ay bitcoin ma xaar un jour affaire bi jàllul déjà c'est bizarre parce que warul xaar un jour ma xaaraat xaaraat xaaraat mën naa dem si benn blockchain explorer tapé suñu ID dina ma wan instant bii nii que ah peut-être que frais bi nga fay moo bariwul moo tax que mineurs yi bëgguñu ko jël xam nga mais Monero su fekkee damaa yónnee yow jotagoo bah, je dois juste faire confiance au protocole, quoi, au code, tu vois. Donc, euh, après nag instant euh, FBI je pense le NSA je sais plus bien c'est agence fédérale yooyu non ils avaient mis en place Benjamin genre bunti pour ne toute personne qui arrive à craquer en fait <laughs> système boobu non de zero knowledge proof bi ñoom dinañ rémunérer les gars ils ont dit, lol, loolu moo tax ñu jàpp parce que nous bëgg comprendre comment est-ce que Monero fonctionne le c'est ce tamit critique yu critiques dañ ci pour ne voilà gars yi waxoon nañ que bitcoin c'est pas vraiment anonyme effectivement au-delà de l'affaire de blockchain explorer bi ma leen wax képp ku am nœud bitcoin wala qu'il y am un euh, portefeuille virtuel sur sa téléphone ou sur son ordinateur il faut savoir que système ou le logiciel de récupérer seeni adresse IP donc dañ koy transférer su fekkee da nga yor un nœud bitcoin sa adresse IP Nous y dañ koy entre ñoom donc euh, man mën naa yor sama benn en fait du ma ko doyee leneen récupère dul récupérer adresse IP et ça me permettra de xam quand moi, am bitcoin dans le monde bah justement si loolu base basé pour voir leen à peu près nombre de nœuds bitcoin existent dans le monde tu vois euh, ki ñi a xam ne dañoo application mobile soo leen ubbee application comme les Jarvis 65 nga bëgg a par exemple yow instant bi ni prix bitcoin fu mu toll et que ces applications boobu yaa ngi fay garder ay bitcoin mais application bi xam sa adresse IP via ce puce bi nga yor sa téléphone wala via ce wifi bi ngay utiliser moom da koy stocké après su ko neexee mu def ay regroupement wala mu jaayaat ko donc bitcoin ba léegi des na sur le plan de la vie privée de la sauvegarde de la vie privée après su fekkee benn utilisateur avancé nga su fekkee yow vraiment tu as dem nga gëstu bu baax di nga gis ni y a des moyens ba léegi euh, préserver sa anonymat total mais voilà quoi pour répondre à voilà la différence entre Monero ak Bitcoin quoi. au fait mën nañu wax ni que sax c'est pas anonyme au fait c'est juste pseudonyme loolu rek la c'est pseudonyme mënoo lier l'adresse que bi nga trouvé à benn identité réelu nit ki mooy identité bi nekk ci carte d'identité c'est juste ça, hein. c'est juste pseudonyme, mais anonymat c'est entre guillemets. D'accord, d'accord, l'air na l'air na l'air merci beaucoup pour réponse ñoko ñoo ko bokk grand Babacar mais wax ñu fan nga déggé si ban contexte nga déggé euh, Monero. Bon, Monero, man, euh, mis à part le fait que dama en général dans naa xool à chaque fois su ma bëggee euh, su ma crypto yu bees affaire non noonu dama doon euh, connecté wu ci si si réseau yi coin market cap aussi dama doon xool à chaque fois crypto bu ou bu génnee damay lire un peu nous nous fu mu jógee ku créer et cetera donc euh, comme ça noonu par hasard la la la la avec Monero fekk instant boobu mi ngi doon ampleur et puis ak tuuti sob ma doon jéem a aussi Monero parce que sont dans les mining CPU là, à la différence de par exemple il yu xaw a comme bitcoin ma ko doon mine, miné di xol lan lamay rapporter qu'est-ce que ça fait lan ak lan lay me servir bon après euh, dafa laaj quand même nga am puissance de calcul bu xaw djegi jéggi dayoo nga am machine bu bax quoi pour mën vraiment profiter ci ci walu Monero bi donc nous non de fil en aiguille ak sax échange mo à am tamit ak yow ça m'a aussi un peu servi Je naa la de ay question ci questions donc je suis na de plus quelques recherches Je may jot à def tamit di comparer parce que bitcoin bitcoin c'est gi c'est-à-dire bitcoin gëm nañ bu jëm allé à def te xam nañ focus en tout cas ci bitcoin focus ak loo xamante ne xaw na tuuti niroo ak moom donc su ma gisee benn potentiel tey jii nii bu mel ni Monero euh, te man bon su ma gisee man dama dama gëm benn affaire mooy que ne su ma gisee dama ne technologie amul tànku ginnaaw quoi man ci man tànku kanam rek la mën a am parce que jàngoon nañ ko gars yi ba ñuy découvrir internet noonu la meloon ñëpp ci xawoon tiit nan lii waaw yéen yéen a ngi jël seen xaalis di ko def ci lii xamu leen lii lan la nit ki moom loolu rek la à chaque fois du bëgg génn ci zone de confort am waaye ñu investiroon ci internet à l'époque ñoom gis nañ njëriñu internet te man dama jàpp ne technologie moom du dellu ginnaaw day dem ci kanam rek saa ne bu fekkante ne nag technologie bu baax la tey jii nii comme nit yi gëm nañ ñoom ne dañoo war libre parce que liberté dafa am importance ci ci ci ci ci àdduna te gis nañ ko ci bitcoin man dama gëm ne bitcoin kon ci kanam rek la mun a jëm ko mënul dellu ginnaaw. waaw comme niñ koy waxee aussi benn nit kese mënu ko tey ji jël monopoliser ko aaki moo ko def ci wàllum waaw dictature quoi mënul nekk parce que mbooloogee ko moom à la différence de par exemple yeneen coin yi nga xamante ne ay nit a ko créé waaw yi nga xamante dañ ko centraliser bitcoin tey ji loolu moom njëriñ la ci moom donc bu fekkante ne am nañ Monero tam bu mel noonu man dama gis ne bon je pense que lii nii day dem ci kanam quoi je pense que potentiel am na ci te jar na gëstu bu baax jarna na xel quoi donc lolo taxone tay ji ma bëggoon ci sànni quelques cadeau. laajaale len ci sen avis quoi donc voilà. merci Babacar amna solo trop notion de liberté bi ngay wax non dafa am solo mais aussi notion de euh, on va dire technologie day jëm kanam tout le temps innovation en fait instant bii nii ce serait vain de jëm lutter contre ce phénomène là euh, ñu bari essayer nañ donc de l'intérieur am ay développeurs yu bari yo xamni gaare len fay pour ñëw saboter wala apporter ay modifications si code source bitcoin mi nga xamni ça va changer complètement la philosophie to soo rayee philosophie ba ray nga monnaie bi en fait ba ñooñu gars dañ leen dégager hein. am nga ci ay attaques yo xamni gaay jëm nañ ko def notamment amoon na benn premier attaque bo xamni ni amoon euh, vers les années 2011 2012 nga xamni Satoshi Nakamoto bi ngi fi won ba légui il y avait une attaque qui avait permis à kenn mu générer 180 millions de bitcoin à l'époque donc gars il comité tu vois éliminer créer chaîne de donc attaque tout le temps même jusqu'à aujourd'hui Nini, ni dollars le bitcoin tu vois mais qu'est-ce qu'on va voir des innovations sur bitcoin donc mise à jour le mois de novembre de Taproot qui va permettre en fait la génération de smart contracts sur Bitcoin. donc l'on ñu ngi sûrement mais lentement y a une innovation sur Bitcoin bu de RBF Donc, pareil ça va permettre de générer un NFT sur Bitcoin à côté de ça a am Lightning Network bon Lightning on ñu bëri dégg nañ mais bon, Lightning instant bi c'est c'est vraiment on est loin de l'idéal c'est vraiment au tout début donc am na ba léegi yu des yoo xam ne gars yi war nañ ko améliorer mais ñu ngi si ñu ngi si yoon bi donc effectivement am nga yeneen cryptomonnaie comme Monero man je pense que instant bi nii su may joxe exemple beneen cryptomonnaie bu sérieuse man Monero laay joxe tu vois am nga beneen bu tudd RSK am nga yeneen ak yeneen mais dans tous les cas soo jëlee liste cryptomonnaie yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi c'est des scams quoi maanaam c'est mais plus ñu jëm si kalam plus les gens vão conectar la, la vraie, quoi, la vraie, si, si l'istumum non yëpp. Les gars, je sais pas ndax den am loolu si bëgg a yokk wala ay question si c'est pas le cas bah je pense que dinañ ko yemale fii hein. Donc ma defaat un petit tour Babacar Idrissa Baye Bom, suñu question wala beneen contribution amul ça par rapport ak sujet bi pratiquement a fait le ok grand Idrissa su fekkee bruit bi foofu wàññeeku la wala wala bàyyi. Nour maa ngi nuyu gars yi baax tey moom bi yéeg na soixante six mille pratiquement ma def je sais pas su ma juumalee fanaan bu bo xamantene fa 60 millions won suma wala de j'ai l'impression wala actuellement 67 000 fait exactement fi instant bi ni ñuy wax parce que sax bu ko xol mi wa sore suma ça c'est vraiment est-ce que ce n'est pas une première parce que 60 000 euros, la ne di pas amon amon ma sa pastole ma su am di wala non les all time high le plus haut jamais vu sur le prix du Bitcoin. pour le moment, <laughs> d'ici la fin de l'année, parce que quand ça commence comme ça vers le mois d'octobre, en sachant que l'unique est en janvier, euh, d'ici décembre, je pense que ça va exploser. Mais bon, il y a le bar, man, nous venir de spéculer quand même. ouais. la bonne voie. C'est mm. possible. Ouais, ni, ni gay rek wecc bi lu mu sew sew parna denc bi ak voilà gën a jublu si mbirum yéen mu kenn yéen ay yéen ay sëriñ si si mbir ñu seen gannaaw ñu suñu maas ngi war a jublu si mbirum seet mbirum ñu dox si gannaaw jëm jàng yokk xam-xam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jarvis est ce que da nga am loo bëgg a tëjee comme ça su fekkee gars yi amuñu beneen question ba ñu ñu yemale ko fii quoi su fekkee yéen ak may dégg jarvis wala idrissa wala sinon kon ñu yemale ko fii ba waaw nuyoo bon xam naa bi may pare bi may pare julli jóg maa ngi dégg nga may interpellé mais bon xaw ma woon c'était par rapport à quoi bi moom pratiquement raté naa lu lu bëri mais bon comme ni nga ko waxee rek je pense que tout bi sax waaw waaw c'est enregistré après dinaa ko dugal YouTube incha allah xam naa après

merci beaucoup hein, merci beaucoup. on se dit à la prochaine.